kàddu nuyu mbooloo mi yëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi di ñaanal Cheikh Modou Mountakha mu mu gën fee yàgg loolu te gën a wér kasaalika noonu lañ koy ñaanee sëñ Amdi Fall xalifa maam Safan Fall Baol Mouridina di santaat yàlla bu baax a baax ci jotaay bi muy jamono yi ñu tollu ni muy doxé di sant bu baax wa waa kuréelu xasida yi yéen ñaanal yalla nañ ci dajje ak tawfiix sëriñ bi di ñaanal bu baax baax itam ñi nga xamne ne ñoo doon téwé alquran yu karim bi bu tuddee Seydina Hamza Touré mu yebal ñepp wax dëgg yalla melna né ne mbir mu nek rek soko joxé yitté yitte muy himma nang ko bëggee dañ ko né amé mel na ne am na ndaje moo xam ne ñoo ngi koy waajal mooy le 26 décembre bi ñu nekk fu waay jëm itam na nga ko yóbbaale ndax danañ defar ay ay ay ay ak ay flyers yoo xam ne bis boobu bisu le 26 décembre boobu jaayante lañ soxla mooy bis bu ñuy jaayante ak Serigne Touba ngir am kër Serigne Touba ngeen xam ne it. amoon nañ fi kër gu sëñ Tuubaa guñ gisoon ba yëgaloon ko mbooloo mi doon ca dox waaye gannaaw lu ñuy wecc yàlla dogal nag googa demoon na ba waxoon nañ leen waaye nag fan yii ñu toll gisaat nañ beneen boo xam ne nii wax dëgg yàlla xéewale na lool ndax jot naa ne la muy jar matul un million pound huit nangam mille pound lay doon am na nag ñoo xam ne nos nañ nocc nañ jaayante nañ wax ne nangam danañ ko jaayante waaye loolu jëragul biral léegi ndax àggagul ca waaye ñii bis bii ñuy woote muy le 26 décembre ñu ngi wut saal bu gën a yaatu bii boo xam ne UK bépp London gépp la ñuy woo ku yaakaar sëñ Touba te di jullit wala nga di murit soxla nañ la ci barab bi su boobaa barab ba nga xam ne ni fa lañu wax ne fa la ñuy defee jaayante bi bis lay doon boo xam ne itam na kenn ku ne xam ne jaayante boobu ñuy woote néewuñ kuy ñëw ku ne indaaleel benn pound wala dara ab jaayante la jaayante nag ku ne xam na ne lu ndaw du ko def ndax sëñ Abdou Lahad neewoon nañu ku jaay lëf te yaakaar a jóg ci jot ci njëgg moomatoo ci sa bopp te ñun dañoo jaay Sëriñ Tuubaa suñuy bakkan ak suñuy alal ndaxte kat inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum la suñu borom waxoon suñu borom tabaaraka wa taala waxoon saxaaba yi àndoon ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom dañoo jaayante woon seen i bakkan ak seeni i alal ñun nag sëriñ bi wax nañu tuur deret moom weesu na waaye nan lan moo fi def léegi mooy alal yi suñ poos yii kenn ku ne ci nun na nga gëm ne na nga xam ne li nga yor ci sa compte sëñ Tuubaa moom moomoo ko dañ nu ko dénk donc ki ñu dénk nag saa bu soxlaan dénkaanam ku gore da nga jox sëñ Tuubaa lam la dénk loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax maa ngi ci profité itam di wax ne sama jëmm ji laa koy tàmbalee ak képp koo xam ne yàlla dogal na nga yore fi njaboot doonte sax ab sóoj la maanaam kuy doog a gane adduna la soo ñëw ci bisu jaayante boobu soo ñëwee na nga ko indaaleel ab jaayanteem ndaxte kat bari na ci ñoo xam ne nii seeni waajur ñoo leen di faggul ndax ku mënagul dara xamagul dara amagul dara waajuram moo koy faggul bis boobu daal képp koo xam ne yaa ngi ñëw lépp loo yéenee jox sëñ Tuubaa ci bis boobu ne dama koy jaayante ak sëñ Tuubaa te wallaahi alazim ku yëkkati la nga yor lépp ne maa ngi koy jaayante ak sëñ Tuubaa soo ko dugalee ci sëriñ bi diir bu gàtt sëñ bi delloo la la nga ko joxoon ba noppi dencal la sa njëg ba ëllëg yomal xiyam ndax sëñ Tuubaa kat ñemewul bor daa te kenn ku ne ci nun nga loo bëgg te mënoo koo ñàkk te mënoo koo may sa bopp te kenn mënu la koo may. kenn rek nga yaakaar ne soo ko doxalee sa diggal sa borom soo ko soo soo ko ñaanee mu may la muy kan mu Mustafa te dañuy wax ne du caaga ne dañuy toog rek nit ki day dem rek ba am problème wala mu wéradi wala mu am yitte woo sëñ bi sëñ Tuubaa ko am fulla la dañuy ne ci sëñ bi di ci nam na di ci wax di ci jéem di ci jëf ba yitte taxaw bu nit ñi taxawee rek Sëñ Tuubaa fa jëlee sa aajo Sëñ Tuubaa am fu la loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax maa ngi soññ sama bopp di soññ képp ku yaakaar Serigne Touba te nekk fii ci dëkk bi na nga xam ne bis boobu ñëpp lañ woo góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwul kenn te bis lay doon boo xam ne itam ndax li ñu ñuy laaj ci kër Sëñ Tuubaa gii 30 pour cent la laaj am nañ nag 20 pour cent mu des ñu leen 10 pour cent mooy lan.

ci online rek ci téléphone whatsapp yi rek ci groupe yi lañ ko doon jàllale diggante boobu nga xam ne kenn génnut sa kër ci lañ dajale woon lu jege cent mille pounds yooyu wala cent mille pounds yu teg loolu kon bu ñëwee ba yàlla defal ñu tawfeex ñu ubbeeku ñu mën a daje man di gisee jortu naa ne war nañoo mën a dajale ci ñetti weer yooyu ñu dajaloon cent mille pounds war nañ cee mën a dajale un million pounds bu fekkee ne li ñuy war sëñ bi dëgg la ci noonu te barab bi ku ne xam ne ni ñu koy waxee xat na xataay boo xam ne fi mu ne wax dëgg yàlla buñ defee lañ war a def kër gi danañ ci jot ndax sëñ Tuubaa nag ñun dañuy bëgg rek di dox waaye nag moom mooy tànnal mbiram moom mbiram boppam moo koy tànnal boppam te barab bii nañ jàpp ne barab la boo xam ne ci barab bi sëriñ bi la bokk li feeg nag ñuy am beneen barab boo xam ne nii kër lislaam lay doon di këru sëñ Touba ku ne xam ne lislaam mooy sañ bi bi mooy lislaam te sëñ bi moo waxoon ne waccal bu yoot ma kullaha daal yàlla sama barab yëpp def ko muy jàkk kon loolu ñun ñëpp nañ bàyyi xel bés boobu daal bi bisu xare la su jaayante la ku ci ñëw ne la wóor ne loo fi jaayante ak sëñ Touba danga ci teg sa bët lu mu mën a doon rek nag ndox lu mu jafe-jafe-jafe rek yomb na sëñ bi kon ñoo ngi soññ suñ bopp di leen soññ di leen fàttali fu waay jëm nañ ko yóbbaale nag.